cérémonie bi dafa am solo parce que soo jëlee Sénégal malheureusement d'après l'ANSD mun nañu wax ne sax lu ëpp moitié bi ay analphabète lañu et comme programme boobu nag amoon na solo bu ñu dem ba analpha ba alphabétiser lu ëpp deux millions de personnes léegi nag laaj reprendre li ñu doon def avant et président de la république joxe ndigal nañu ban stratégie la ñu war jël pour que fo muñu dem ci Sénégal ah ñu mëna a classe yoyu ren nak su si yàlla àndee dinañu tijji juróom benn téeméer ñoo ci biir Sénégal ay classe la waaye waruñu yëm fofu parce que alphabétisation classe baxna baax mëno waaye wax alphabétisation té do réforme do associé ñi wax na ño xamné ño ñu yor langue nationale linguistique et en même temps même soy alphabétisé, mënoo alphabétiser rek pour alphabétiser parce que sinon soko ko a ren déwén di ko defaat loolu motax liñu defone ñu texte am solo que ñun aussi suñu alphabétiser il faut que ñu jéem a alphabétisation bi so ñëwaatee déwén kooku mun a continuer donc laaj na stratégie loolu motax ren UNESCO ñu jël journée bo boo journée mondiale <coughs> bo xamné mom moy journée de l'alphabétisation nous avons nañu seet face crise humaine mel nous lan la ñu def et ñun fii ci Sénégal jox une instruction directrice pour que nous jéem a nous nan la nous war a ñu ko doon chaque année dinañ ko soppi de toutes les façons de telle sorte que sénégalais yëpp jóg parce que non seulement mun nañu jàng waaye comme les Covid bi maladie bi pandémie bi nous nañu mënuñu ko xeexee communautaire donc nous aussi si nous wàll lu leen ci alphabétisation war pour que bajenu chefs chef de village communauté les jeunes les ateliers du Sénégal partout où ils dem ñun traduire expliquer donc alphabétisation fonctionnelle bi ñuy moi moom mooy tax ne que li ñuy wax illettrisme. ñoo xam ne ñu classe passerelle Nous avons ñoo xam nous ñu atelier Nous ñëpp fu partout si Sénégal partout foo mënta nekk mu une classe ou une classe ñu muñ le former. Nous sommes pour que tout le monde wax alphabétisation Sénégal tout le monde en siècle 54%. de pour pour que nous puissions réduire il faut que nous puissions acteurs acteurs au niveau local au niveau territorial au niveau des académies ñun également au niveau central Nous avons une stratégie pour de telle sorte que nous avons ñu nar nous former ñu Thank you.